bu dee gars yi dafa am ñu la ragal man duma la ragal centime tojoo fenn wan ñu loolu liggéey bay wàcce ay conteneur wan ñu loolu liggéey ba yor oto buy jar cent millions wax loolu Gabriel oto bi ngay dawal bu ruus bi lay jar loolu liggéey conteneur yi nga yóbbu Touba yi nga yóbbu uh, uh, Fuuta yi nga yóbbu Kaolack ban salaire ak ban tubaab moo la fa jox wan ko sénégalais yi génneel këyit ne euh, euh, Jean Laurent moo ma ko may génne ko ñu gis doo ko génnee bul ma wax loo bul dugg si man bu mu amati doo foo de da nga bëgg gars yi Pastef Michael Jackson li ma xam bu ma ko waxee Michael la ñuy yee Michael te lu ma si góobee gar kali di waxal nag dofu leen jinne dugg leen doppaaru xam ngeen bu baax bi ma falaa yem ak yow pour le moment pour le moment attaqué nga fi ku ne barki démb attaqué nga Mamadou attaqué nga Paate yow Françoise Hélène seen coow ngeen bokkante maître El Hadji Diouf na si barki démb maa xam la toog nga wax ma Françoise ma aji di ma wax <coughs> ma yëngal de lu waykat ba waxoon bu leen ma yëngal waay hee di nga baaxul di nga baaxul bu mu amati falaa yem man mosoo ma may cent yi <clears throat> dañuy ñëw rapidement euh, ci dof bi parce que man caractère yi ma gis ci moom Mengo la caractère ak nit bu andak sagom té te même bu yon yoon dama leen di ñaan même bo leen démé ba koy atté inshallah na ngeen wérgu yaramam parce que dans une république normale une personne ne doit pas être si agitée Manam mom dañ ko jiiñ manam li waji ji li gaay di wax ñu ne ñu la ñu waxu bey nga bàyyi Euh, moom dañ ko jiiñ te liñ ko jiiñ defe naa sénégalais yëpp dégg nañ dafa am xale bu jigéen bu tudd aji xale bu jigéen bi mu am fukki at ak juróom-ñeent mu am aussi xaritam boo xam ne ñoom ñaar dañu dem xamante dañu xamante demuñu kenn ki la waa ji Ahmed Cissé nax Marème ne ko dafa am néeg bu ñuy loué ci kaw étudiante la dafa am néeg bu ñuy loué ci kaw sixième étage parce que ñoom noonu la ñuy naxee jigéen ñi pour ñu yegg ci ñoom euh, Ahmed Cissé nag dinaa ñëw ci kaam bëgguma def euh, miscommunication c'est important gars yi ngeen déglu ma bu baax a baax a baax xam nga doomu aadama buy yuuxu bëgg a lëre nit ñi bëggul kenn dégg li muy wax dafa am lu mu bëggul nit ñi comprendre mais comme ñun dañu ànd ak suñuy sago ñun dañu bëgg comprendre nous voulons savoir ce qui s'est passé dañu bëgg nit ku ne buñ lay accuser dara nga ñëw nga vraiment li le problème bi li lañ ma accuser ci def defuma li li la ci wax waxuma li waye fu nit ñi waxé rek nga jaay leen ba ci sama xaritu patriote yu bari du ñep nak amna ci ño dafa am ndax dafa doon jëflante ak ay nit yu bari donc ñu bari ñemewu ñoo wax ci moom dañ ko ragal moo tax ngeen gis neutre bi bari ci réseau yi ñu bari dafa am loo xam ne ñemewuñu ko ci moom parce que xam nga nit ak nit boo leen di jëflante nga jëflante ak nit koo xam ne làmmiñ bi dafa rattax lu ne lay wax dangay ragal man de alhamdulilahi rabbil alamin fa ma yàlla dimbalee mooy man musuma am confiance ci waaj donc musuma séq ak moom mësuma jëflanteeg moom message bu ma mës a yónnee dama koy lire soit ma bañ a tontu wala ma tontu ko tontu bu gàtt parce que man damay freiner nit man dama xam doomu adama lii nag boo leen gisee ñu ñëwaat fii tey di ko wax vraiment vraiment vraiment vraiment vraiment dañu bëggul lëndëmal xel yi ñun dañu bëgg xel yi leer ñun dañu bëgg indi leeral ci li nga xam ne mooy bopp doomu aadama yi bëgguñoo jaay sénégalais yi tàllammiñ gars yi partagé leen ah partagé leen massivement parce que dañuy wax ak dal comme ñun dañoo ànd ak sago te lépp loo xam ne war nañ koo wax ci cas Khaliphone Sall bii tey dina leer xam nga moom dafa ñëw mu yuuxu yuuxu setal nag ma waaw nee nañu laalu ma waaw nee nañu non non non non non non c'est pas ce qui s'est passé xam nga mbir mi dafa am rapport médical am certificat médical te doomu aadama yi nekk Sénégal yépp maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy fajkat yi am na loo xam ne xam nañ ko ci certificat médical te sur le cas Kaliphone Sall li ma bëgg ngeen xam mooy docteur yi dañu ne carrément xale bu jigéen bi nga xam ne moom moo accusé Kaliphone Sall nee nañu mënu ñoo établir viol maanaam Kaliphone Sall tëddeewul xale bi lolu kenn musu ko werante ñu ne nak aussi mënu ñoo gis baram dugg ci bir xale bi ci benn fànn bi ndax xale bi elle était vierge manam ka nga xamné mom ngeen jëlon nonu ne yére yi mu sol cagalaak tëddee nañ ko def nañ ko non non non non wala dafa bon xale bi bonut ndax xale bi né nañu xamul góor dafa vierge. waaye am Tedas, des amna ay mat ci ay violence physique bo xamné ne nit man nako gis te gis nañu ay duma yo xamné ne ci ko doomu def ko cert certificat médical jox jours d'absence de travail donc pour Khaliphone Sall ñëw bëgg a gëmloo Sénégalais yi ne dara xewul wala satal nañ ma non noonoo non non c'est pas ce qui s'est passé xam nga waxtaan dañu ne toujours wax dëgg ca la Khaliphone Sall siiful xale bu jigéen bi loolu c'est établi waaye bu doon ci suñu dëkk yi lu tudd sexual assault Khaliphone Sall jëfante na loolu ak xale bu jigéen bi parce que laal na ay awraam xale bu jigéen bi Khaliphone Sall laal na taat wi

Kalifon Sall génn nim koy fajee moy saga fenal na ma duulal na ma xool leen rey nañu ma Pastef non non non non c'est pas le cas déjà man xawma kan lay woyé wa Pastef loolu moma ñëk jaaxal xawma kan lay woyé Pastef parce que man duma wa Pastef xam nga ñun injustice la nuit té injustice bobu ñuy xeex bu dee ci senegal dañ koy xeex bu dee fii ci bitim réew dañ koy xeex buñ ko tegee sama doom dama koy xeex buñ ko tegee doomu jàmbur dama koy xeex moom Khaliphone Sall ci boppam buñ ko tegoon injustice ñun dañ koy xeexal billahi wallahi tallahi lazim bu ñu tegoon Khaliphone Sall injustice damay ne noo non non non non non bu leen ko teg injustice

loolu ñu lal daf def wul ndax dem ba deggal ngeen ko seen bop mom Kaliphone sal limu genn limu yak ndaw si ndaw si kan yak na ko lu melni xamé waye man dama né sénégalais yi c'est pas de l'information parce que ñun ñep xam nañ né dañuy deal ñun ñep xam na né Gabriel a reçu des millions ñun ñep xam nañ euh, que le nek Californie recevoir na ay millions ba tabax keur yaayam genné nañ ko te xam nañu né mom Californie sal recevoir na ay millions momit ndax ma nga ca réew ma di tambambalu di saga nit ñi ku wax mu saga la il se dit avoir des bras longs ba yaakar na ne kenn du genn wax deug ci limu def il faut mu xamne amul benn doomu adama bu Khaliphone sal di intimité xam nga man nit ñi dañ ma koy wax toujours Khaliphone sal mi ngi saga ki wax leen ci mom non non non non xam nga wax da ngay wax lu am njariñ dof ken manul tontonteeg nit ku xalam dalul lolou n'est pas notre cas Nous suñu cas Nous, ñu teg suñu nous fa fa la dëgg bi nekk c'est pas vrai ne dafa am blessures et caractérisées par un certificat médical qui a clairement dit que Adji bénéficie d'une incapacité temporaire de travail de 8 jours nit ku ñu deful dara mënul am loolu avec sept jours seulement les gendarmes sont obligés les gendarmes sont obligés à interpeller les auteurs loolu il faut doomu aadama xam loolu et les auteurs c'est Kaliphone ak Ahmed Cissé aduna bi yëpp dégg nañ leen ñu toog ñu ne ñoom ñoo duma xale bi aduna yëpp dégg na loolu dama xamul kañ la ci àddina xale bi du karatéka du judoka xalé bi kenn déggul da dafa am fukki ceinture noire xalé bi Kaliphone moko ko ci kërëm ak ñaari tankam ak ñaari loxoom moom laay laalu ko rayu ko defu ko lan motax ñuy xex ray ko koy def mu neex ko dana la fon japp la caressé la ngeen rayante wala momit mu del la ab ray waye kañ la ray dan indi ay courpeñante ay matante ay kastante ay sagante Ride daanul indi xam nga buñu tay nit ko dem ak ñaari nga dawal ak mom auto, di comme Californie un deux trois quatre cinq ko hamburger ko ko nangam naka nga koy défé avec une fille que tu détestes tellement que may francs CFA xam francs CFA c'est une moitié de 100 dollars maanaam non non non une moitié c' est quarante pour être juste de franc quarante dollars maanaam yéen ñi nekk Europe vingt cinq mille franc CFA mooy trente cinq euros wala quarante euros donc man naka la ñu mën a toogee ci réew mu sérieux ñu ne ay doomu aadama ñoo toog ci réew mu sérieux moomu di indi ay atte yu sérieux ci ay doomu aadama yu sérieux ñu ne ah attention Californie ndaw aussi, moo ko tooñ moo tax mu ko même bu la tooñee dans un monde normal amuloo droit pour dóor ko loi dafa interdire nga dor jigéen parce que nañu waxante dëgg suñu doole yemul góor bu dóoree jigéen man na koo est une personne violente balaa ngeen koy dem setani ay live am menaces yi def d'omo aadama xeexoo yi muy def doomu aadama yi saagante yi muy def ak doomu aadama yi dem leen ngeen déglu ko bu baax loolu mooy dëgg il faut que doomu aadama yi tamit ñu bàyyi fonto nit ñi ñun mën nañoo nekk ci senegal di wax juróomi at di wax ci Macky Sall di wax ci Marème Faye Sall di wax ci doomu aadama bépp ci senegal bu def lu baax wala ñaawteef Kalifone Sall ne mom dañ ko jiin sif te benn nit du wax pourquoi mom mo génnal bopam ngeen dégg ko mu y'a aucun complot yéen a ko dégg mu ne mbir mi amul benn déggoo ci bir Californie moñu ko wax ndax ñun audio yiñ fi indi xalé bu jigen bi wax ko ñu indi yeneen audio yi benen xalé bu jigen bi wax ko Kali au minimum il a essayé de violer une personne. parce que attente à viol moi manam ngay djema def nit lo xamné ne bëggu ngi djema teudé nit Lolu moy attente à viol Boko violer nak bo dougalé sa baram sa tank ak lepp lu mu meuna don, mu nek viol donc il est présumé jusqu'à la preuve du contraire mais certificat de médical bi établir na né mom Kaliphone Sall pour muy leer encore une fois pour mu baña leer xelu sénégalais yi kenn newu ko setal nañ ko wicc kenn waxu ko lolu non non non il faut que ñu respecter sénégalais ban nit bu normal mo meuna ñew taxaw mu ne non non non gaay yi setal nañu deram dedet kamu mat tewo bàyyi kooku la setal deram muy Seydina usman Sonko mu ñoom dañu jël ñaawteef teg ko ci doomu jàmbur bu set wicc gor ñu jël ay ñaawteef sosal ko doomu jàmbur certificat médical génn docteur bi sax ndeysaan mënu ko woon muñ parce que ba ñu yoree certificat bi dañ ko bañ a feeñal ba koo layam-layame docteur bi ci boppam génn mu ne leen li ma bind ci certificat bi loolu mooy dëgg et te benn doomu aadama bu mu ko falsifié nag mooy Ousmane Sonko sequl ak Adji Sarr Adji Sarr kenn raayu ko kenn bësu ko amul marku baaraam amul marku xeex amul marku gàjj amul dara lépp lu muy wax ay fen la yu tooy xepp nee ñu perte na ndawam bu yàgg loolu fekk dañ ko fa ndaw li nekkatu fa nekkatul ndaw xale bu jigéen bii Californie doon jéem a def ay manière kooku dañu ne ndaw la kële dañu ne masul nekk ndaw maanaam la ñuy wax yëpp ay fen la ay sos ak i tappale donc ñu jël ñaari leeral ko séparé ko carrément ñii ne Ousmane Sonko waaw bañ ko ne mu wuyu ji looy wuyu kan ngay wuyu liñ la accusé ñi ko war a setal dindi nañ ko point par point ñu ne dara amu ci ñu ne tëddeewuloo dugalulo Rayulo, Fonulo, djegewulo donc amul dara lo war nañ ko cee discuter légui le cas Kaliphone ñu né mat nga wène nga duma nga bi pour moi l'air on est dans un pays sérieux on est des personnes qui sont sereins et des personnes sérieuses donc nañuy guin indi lo xam ne la té ñukoy ci toile pour nit ñi xam toujours ils s'acharnent sur quelque chose qui a été établi et éclairé amul fenn ci Sénégal <coughs> benn docteur bo xamné gisul ci cas Ousmane Sonko Adissar néna len viol mo manta am fo xamné rayanté amufa amu fa foonante dugal amul génne amul xoss amul xuri amul dara amul tout est clair et net Lorsque nous ñu ngi certificat médical Ousmane Sonko ngi yor avocat a ngi copie donc l'air na pas établi L'olou dafa jeex tac. dans un pays sérieux nous ko topé. dara dans le cas de ce vaurien de Californie, nous avons matt na weenu xale bi dafa matt xale bi ci ween moom xale bi matt na ko ci loxo gars yi xool leen chaise oto bi fii yaa ngi fii nga dugal sa loxo ci ween matt bi fii la nekk fii la nekk ci loxo Kaliphone booy xeex ak nit nii di ko doon ay coup lan la lay matt ci biir loxo fii dafa laal fu mu warta laal xale bi ne ko képpét matt xam nga bu doon ñun ci suñu pays yu sérieux yi dañuy mesurer ay distance xool gémmiñu xale bi boo xolé loxo ngi nga duggal ko ci uh-huh. voilà tu regardes on a mordu Kaliphone ici au milieu de sa main fi lañ ko batt nek di dor nit mu lay dalay mat fi wala mu matt la ci kanam wala mu ak yow ay dor ñu la fi yow di donner ay coup ñu lay non non non c'est pas ce qui s'est passé donc soyons sérieux dañu nekk ci dëkk yoo xam ne doomu aadama yi dañu ànd ak seen sago man nee naa Kalifone Sall il faut mu comprendre ne ñun duñu acharné wu ci moom parce que amul dara loo xam ne daf ko mérité Kalifone Sall il ne représente rien xaw ma lan moo ko war a xalaat loo ne ñun ñi tekki ci suñu àddina di dund suñu dund yu normal te dépendre ñu ci doomu aadama ñu koy attaqué moom ñun amuñu benn ben amuñu benn intérêt pour attaquer Khaliphone sal ndax bam ñuy attaquer sax faale wuñ ko waxatuma laak ba ñu bum ñu attaqué wul mais suñu rak bu jigen bobu dinañ ko xéxal ba mu saf sap gars ñu nekkuñu ci ay parparloo xalé bu jigen bobu elle a 19 ans ma fille aînée a 19 ans sama taw bu goor amna 20 di jëm ci 21 ans. xale bu jigéen boobu bi ma ko déggee li ma njëkk xalaat mooy sama doom bu jigéen te may leen surprise nga nekk live sa doom bu jigéen dégg la mu xam ne yow mii de ku am 19 ans la ñu jàpp duma ko gaañ-gaañ yi mi ngi partout dans l'internet ñëpp gis nañ ko ku mel ni man ak li ma représenté man ñeme naa noppi ci loolu man ñeme naa gis doomu Sénégal man man a Sénégal laay xeexal je suis un patriote ma gis doomu Sénégal boo xam ne dañ ko duma toj kanamam yépp ma ne du ma ci wax parce que bu ma ci waxee gars yi dañuy jël mbir mi mengale ko ak affaire Ousmane Sonko dañuy jël mbir mi yóbbu ko fële jeune ne le ferai jamais am never gonna do that I don't give a fuck bu ma paree xeexal xale bu jigéen bii bu leen neexee ñu yóbbu armée sénégalaise dem tirer Ousmane Sonko loolu seen affaire la ak Ousmane Sonko ak yàlla ak sénégalais yi ak ñun ñëpp ñi fi ne mais du ma bàyyi wax. li nga que mom moy deug te rek tax luma ci luma ci que ci gar pour moi leer encore une fois califon sal na génn wax lu ko neex doomu gor nga waxuñu ko defuñu ko muy affaire la ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ce qui se passe on parle de viol

waye xam ne man buma nekkone senegal Sénégal man ma nekk Sénégal waxuma la nit def ka te nguur diko ko waye waaye nguur attewu ko ba pare mu wër ci dëkk bi di saga doomu góor yi man buma nekkone senegal je résous les problèmes comme ça man xam naa ne mën naa résoudre problème yu mel non mais comme yalla dafa def dañu sori dañuy def lépp lu ñu man pour doomu aadama yi dégg li nga xam ne mooy dëgg bi ñun duñu ay sàmbaabo yi ñun duñu ay ay dof ñun duñu ay nit yuy nelaw naka ngay jëlee doomu jaamur bu nekk ci jàmm nekk kër yaayam di snap ak kontaan elle est toute xale bu jigéen bi boo demee nga suivre ko di nga xam ne wallahil azim wallahil azim wallahil azim wallahil azim da ngay fekk doomu aadama bu set wi ci nekk këram nek ci jam di dox soxlam dara jotuko ko xale bi dafa jang Kaliphone perdant la mom jangul jongul mais xale bu jigen bi dafa jang jang journalisme xaritam bi jang droit marem dafa jang droit xamnañu droit ces deux petites filles bo gisee ni nga xamné non lañuy prononcer wo da ngay xamné dañu am xam-xam Kaliphone ne kenn du ko wax Kaliphone ne non non non ken warul soutenir fi, mom daf len wara abuser te sénégalais yi dañu wara and ak mom mais pourquoi pourquoi lolu pourquoi yow am nga ño andal yow kat nga yow am nga ño xam ñu lay andal, xalé bu jigen bobu du dof koku sori na dof koku du wax lu mu xamul du wax lu ko worul dara du ko wax xalé bu ndaw 19 ans yow man nga ko jur dom Kaliphone man na jur xalé bi mom ak Cheikh Ahmed Cissé man nañu jur doomu jàmbur jooju yéen ngeen nek ci sen ñaawteef ah du ma ne am ngeen ci droit du ma ne am ngeen ci droit ndax kenn amul droit ci def ñaawteef waye vraiment am ngeen droit ci justice justice day atte ku bax day atte ku bon léegi yéen ngeen def seen yiw ne fang ngeen takk seeni ay micro di saaga doomu góor yi Kali dafa yor arm sénégalais yi bàyyi leen loolu xel Kali dafa yor arm arme bi mu yor mooy làmmiñam Kali loolu mooy armam làmmiñ dafay taal Facebook am saaga ñëpp boo xoolee nee naa leen xool leen ñaata nit ñoo ñemee laal ci keesu Kali kenn ñemewu ko laal Tunkara xam nga man li gars il faut qu'elle comprendre loolu kali kali eh, man gangsta la tu n'as rien compris Dangaila domo doomu aadama yi ñu wax la ñu ne la tunkara mii de demal nga tëdd nelaw ndax yow xam nga ne man man mom du ma fi toog kilifa gu ni man nan la man ak kali ñemew ñoo daje man ak kali moom xam nga di di konte sax nan man ak kali ñu dama yab sama bob, dama yablu sama bopp loolu duma ko laal ndax man ak kali di daje mom ça c'est de la foutaise ndax Khalidou sama morom duma moromam te mom d'accord na loolu loolu du lu ñuy débat ndax mom ci bopam bo leen di wax dalay won boppam mais li am te dess li am te dess moy na ngeen xamne ndaw si jigen la te jigen, yalla ko teral yalla moko ko jigen moy suñu yaay jigen mo meuna contane lo loo jigéen moom moo ñu jur jigéen moom moo ñu indi ci àdduna bi jigéen lépp loo xam ne dafa nekk ci ñun jigéen moo ñu ko defal jàmm ju ñu am ci àdduna bi jigéen moo ñu ko defal il faut doomu aadama yi di bàyyi loolu xel donc jigéen yooyu nga xam ne nag ñun suñu jàmm ci seen loxo la ne jigéen yooyu dañ leen war a aar dangay ngay dégg ndeysaan mag ñu baax ñu naan la jigéen kenn du ko dóor dañ koy raay kali ban nit bu normal moo ko mën a défendre ban nit bu ànd ak sa sago mo meuna génn di défendre Kali Cheikh Ahmed Dramé rek Cheikh Ahmed Cissé rek moy défendre Kali te Cheikh Ahmed Cissé buma len waxé ci mom tay damay ragal buñu paré rek ngeen daw génn live bi taxu Sénégal sax bayil ko dëkk bi Kali n'est pas une personne normale il n'est ni normal ni sincère roqee ma ngi lay nuyu sama sœur bu baax bi J'espère que tout va bien. ko normal. Kali n'est pas une personne. xam nga ci personne. sax nit man dit nit nga am regret nga dit nga ñaan nga nga Kali ne yow da violer doomu docteur Euh, maanaam ñoom li ñu gis rek la ñu a wax ah les docteurs ils ne peuvent que dire ce qu'ils ont vu parce que xale bi bin bin imagine leen bin bin xam ngeen bin bin fan lay nekk ci nit yéen ay jigéen ngeen bin bin fu muy ne ci nit kali ci boppam ci video bi dang koy dégg mu naan la bin bin bu dagg mooy preuve ah bin bin bu dagg mooy preuve ay nit pour nga dagg bin binu nit il faut bëri xëccoo wala defante am fa loolu mooy dëgg soyons sérieux bin bin fi mu laqatu c'est une place privée loxo bu fa yegge rek sexual harassment la at au minimum loxo warul yegg ci fi bin bin nek ba muy dag bin bin coup de poing daggu ko lan loxo kali di wut ci ay bin bin bu don donte kali budul dafa nam ay bin bin lan la loxom di wut ci ay bin binu xale bam koy dag xale bu am 19 ans 19 ans Mom kay ba nga waxe bin bin rek nga wara xamne koku ne xale bu ndaw la 19 ans da ngay gis ay ay ay jeeg di tak ay bin bin ça c'est une petite disquette nga dem nga parax paraxeeg mom ba dagg mbir ya legui nga ñëw taxaw aduna bi yeb di la deglu nga ñaan wala yo tu es innocent au minimum katu bin bin nga te dag bin bin bobu respect nañu ne violanga nga li nga xamne mom moy privé ci ndaw si ne respectes pas les Sénégalais yow waruloo wax ci société bu normal nga naan non dañ may téré wax li may wax moo tax déranger li ngay wax déranger wul ken ce que tu dis ne dérange personne tu ne déranges personne li ngay wax sonalul ken intimider wul ken Kali tali yow fekkoo fi yow fekkoo ñun yëngal nañu aduna ba tok yow nga fekk ñun ñu dem Makka ba Madina ba aji Makka ba dellusiwaat un impoli comme toi nga ñew fi di ñu ne yow tu intimide tu fatigues quelqu'un tu fatigues personne ñun dañu bëgg nga sa sago nga tu as essayé de violer une fille té do téré ben doomu adama mu wax ci nga enregistré ña nga xam ne yéen a ci yéen a def yi ngeen di def sama yenn xaritu activiste yi ñoom ñoo xam lu tax ñemewu ñoo wax ndax gis naa yenn pass yi moom dañuy gaar wàlle léegi nee nañu affaire u kali bi euh, c'est pas euh, euh, une nee nañu daal Mimi Touré xaw ma ak lan ñoom ñoo xaw ma lan voilà affaire u kali bi mais vous êtes des imbéciles yéen gëmu leen yàlla vous êtes des imbéciles billaay wallaay tallaay xam nga nit ñu ne am nga droit bañ a wax am nga droit darah, wax dara loolu sa droit la kenn dula ci wax waye kanta ngay jël lu grave lu melni nga koy jema minimiser parce que Ousmane Tonkara mi ngi ci wax yow lo ci wax yow lo ci wax yeen ñu bari xam ngeen lutax leen wax parce que Kali da ngeen nekkon xarit ak mom demb mu enregistrer leen am yo xamne da ngeen koy wax ndax ci waxu toj-toj ngeen dekk ak waxu mu japp len fo xamne yeen xam ngeen na ñemewu len ngang du ñepp de xol len dem len ngang xol di nga gis de mula Morgan mom dana Dor kali ba muy bëgg de ak ñeneen mais dafa am ño xamne ñom duñu laal duñu jégué dañuy ragal parce que xam nañu nek kali làmmiñ bi dafa ñaaw te du rus donc ragal nañu ñu ngang ñu wax ci kaw parce que bu len déggé dañu ragal mu wala mu génn waxal leen ay affaire loolu la ñu ragal loolu nag mooy naa parce que yow boo nekkee ci société ngay tànn say sujet sujet bu la arrangé nga wax sujet bu la arrangé wul nga bañ a wax mais loolu naa la booy conscientiser boo nekkee en éveil de conscience tous les sujets même bu dee tey da ngeen yaakaar ne Ousmane Tounkara de li muy wax nii ci kali du dëgg lii mooy dëgg génn leen ngeen wax dëgg bi certains disent la vérité waaye ngeen nëbbatu seen pax yooyu di gaar wàll di sànni xeer parce que da ngeen ragal ku leen saaga loolu ñàkk jom la kali nañ ko wax dëgg parce que bu dul dara sax yeneen ponkalu góor yi nekk ci biir dëkk bi ñu ragal dellu ginnaaw ndax jigéen ñi ñu ngi leen di rey ci senegal bëgguma di relayer ay information yu doge yuy jóge ci dëmm boobu Gabriel kan waaye dem wax na lu am solo ci ci ci ci Walfadjri nee na affaire u kali bii tax na ba rey nañu jigéen ci Sénégal te kenn waxul ci mom parce que ñepp top. wala wax touti fi bàyyi fële bàyyi feneen bàyyi feneen il faut dire ce qui se passe dans notre pays il faut ñuy wax deug il faut qu'on se dise la vérité deug bu amé nañ ko wax te yalla tax parce que deug yalla moko mom fen day yëngal aras fen yàlla da koo sib yonentam sib ko bépp jullit bu baax sib ko ñun amuñu benn droit pour fenal kali mais kali saa bu génnee nañu génn établir dëgg bi parce que kali li mu yor arme la day génn yuuxu xataraa yu nit ñi ñëw set ko mu yuuxu accusé ay doomu gor wala set naa setal nañ ma dafay fen certificat de médical bi setalul kali dafa ne ñoom mënuñoo établir que dafa dugal baaraamam dañu ne moom dafa dañu setal ñu ne xaw na dugal baaraamam dañu setal ñu ne am mënuñoo établir astafurla mënuñoo établir que dugal na baaraamam mënuñu ko établir cela cela ne veut pas dire que laalul fi mu warta laal ñii suñu ay sœur lañu démb rek maa ngi jot benn message bu ma metti du ma tudd tur bi nag parce que dëkk boobu am na loi te borom permettre gu pour ma tudd tur bi donc duma ko wax maa ngi jot message jigéen bitim réew ñu yónnee mu yónnee ma photo ñu violenté ko maa ngi doon dox ci mbir mi ndax woonaa ko góor ki wax ak ku jigéen ki ne ko mu dem porte plainte comme bitim réew am na loi ma am jéego yu ma ci dox waxaguma ci nag parce que awma permission bu fekkee loi deful liggéeyam bu boobaa la ñuy dénoncer xale bu góor bi mais loi dina def liggéeyam mais comme ni ma leen ko waxee contrairement du senegal nga génn ngay waxak xale bu góor boo xam ne dafa def ñaawteef au lieu mu génn mu wax sénégalais yi lan mo xew mu génn di saga doomu góor ku wax mu saga la dama len di indil vidéo ngeen déglu encore li muy def té suñu force de l'ordre ngeen sur place ku wax mu intimider la ku wax ci cas bi mu génn saga la ba nga rap déglu len ko li li waruñu ko nangu pourquoi nous devons accepter euh, you know un petit samba boy comme Kali dem jéem sif doomu jambour ba pare ñew di saga nit ñi. dem lu aji saar te yàlla tax. déglu leen. Ah, parce que aji galère muy dund yëpp ya ko teg. déglu leen. waaw ah, kay sonal nga aji buntu xatal nga aji. door nga aji lu ne def ko aji. déglu leen te bu lay wax nak ay preuve lay andi wax yo xam ne aji ko wax lu muju Gabriel lu barka ti dembu semaine passée ba may aji yow yaa ma njëkk ma ne la damay dugal aji nga ne ma noo bu ma ko dugal ma jël sama beneen téléphone bi. déglu leen li ma ma coupé la. ma woo aji yow gab ma woo la sama téléphone bi ngay déglu sama diggante ak aji. déglu gab en personne ngay dégg. aji di la traité de dóorkat. déglu leen jikko naa fekk gab doo weddi loolu. sa rakk Aminata du weddi loolu. parce que Aminata boobu mu ngi toog ak yow yow gab. bu leen ma wax loolu des waaye ah. déglu bu leen ma wax loolu bëri. inna yaa ngi seetaan Aminata Kane rakku Gabriel ba barki démb sax ñu ngi si doon waxtaan boobu yaa ngi naan yow dama toog xamoon naa ni yéen ya, a ba ma gàpp woowee di ma expliquer problème ak aji yow Aminata gàpp yow sarax yéen a ngi toog ba ma la coupé woo aji gap ma wala la beneen téléphone yow sa bopp yaa ngi dégg aji di la wax duul kat nga consommé nga loolu ci aji nga déggal ko sa nopp sa nopp aji mu ngi may seetaan du weddi loolu wax na lo te bëgguma nax aji sax. bi nga wax Gabi dóolkat la Gabi ngi dégg dégg nga ko de aji di la traité de dóolkat nag bu leen ma yëngal bu leen ma yëngal ñaan leen yàlla ngeen bañ ma yëngal ak yeneen ak yeneen ak yeneen à part yow tamit ak feneen bu leen ma yëngal quoi courant dafa coupé mais aduna oh, war naa man mi daan rek déglu leen ko aduna am na solo amul solo courant dafa coupé gars yi ah courant dafa coupé amul solo maa ngi yemale fi live bi guddi na li ma naroon wax wax naa ko la sa reste maa ngi réservé wu toog sama ruq di xaar bu ngeen bëggee mu rafet dina rafet a vie bu ngeen bëggee mu ñaaw. nañ te déglu leen ko li muy jooy déglu leen ay jooyam. waaw ñu def gratuite entrée gratuite bu leen jaay ticket yi ñu def foofu combat bi. dafa tas il est devenu fou et ce qui reste. faire face avec Kaliphone. def déglu li. ah waaw moom yëfam yëpp saaga la. moom yaakaar na ne saaga mooy ndox. bu leen ñaan yàlla egg ak man yooyu de. yegg nañu. waaw ah, li ma yor dafa bëri li ma denc. dara dafa bëri xam ngeen bu baax. déglu li li mooy. leen jënd duggee nag. ba ngeen di may jaay affaire ba naafeq. mais boo à partir de tey si guddi gàtt nga woo aji ne ko bul waxatee Kali. je m'en tape man wax ak aji amul lu may apporter parce que aji ma yëkëti sama alal di ko defaral. déglu leen li aji fu mu nekk. Oh. ma don dem fekk fay élément bip. ñu top ma ko don yobul pizza du ben du ñaar du ñet déglu témoin sax amna na bu ma koy mujj yobbu ma ak sama frère ak sama sœur. ba aji ne sama sœur ne ci kaw mu nuyu ma ko dédé du yëk wa kon nak <laughs> bu len wax lo way han ah, nek lañ si jamm yalla na yàlla defal ñep jamm wa bayil mu sedd du ci man ci gap la na xamat bopam parce que yéen ñëpp gis ngeen action bi nu mu demee. en direct may woote nu ne non non bu mu wax pour lan. te yow nga dem réew ju foofu toog ñu dugg ci biir ngay def ay coups bas naan danga may défendre xale bu jigéen bi victime la bu ngi këram toog di dund métit man dundu ma métit man. xale bu jigéen bu toog wax adduna yëpp dama ko violé fekk ay duul la di yàq sama der looloo gën a métti fop looloo gën a métti. loolu gën a métti parce que bu dee dafa am cicatrice bu ñu ko fajee une semaine cicatrice ba day dëñ. dégg nga mais man lu mu yàq sama der à ah, vie la samay doom màgg ëllëg. déglu leen si internet bi google ak tiktok ak lépp. ñu ne sa baay violeur la woon sama doom mën na xaw. loolu lu ko gën a métti amul. déglu nga toog naan xale bi mu ngi dund métti këram. ban métti la dund xale bi def ñaawteefam tuumaal papa jàmbur tuumaal jëkkëru jàmbur. sanctionné woo loolu di sanctionné ay xale bu ñu mat ak bu ñu gàjjee yu kenn xamut. ci àndaan yéen da ngeen ëpp droit góor ñi ci réew mi. réseau siggil jigéen sa dal góor dafa am. déglu li jigéen bu jaayee reewande góor dóor góor matt góor góor day taxaw ne ko jërëjëf ñaanal ko fatiha amul góor bu koy nangu jamais waaw fa laay yem pour l' instant nag sama Facebook maa ko moom sama bu ñu ma doon tëj vingt ans. yen a ko déggal seen bop donc man fi ma intéressé ci wax di déglu len yéen da ngay top droit gor ni ci rew mi réseau sigil jigen sa gal gor dafa am déglu len tam réew ñu fofu tok ñu dugg ci bir ngay def ay coup di nan dang may défendre xalé bu jigen bi victime la bu ngi kërëm tok di dundu métit man dunduma métit man xalé bu jigen bu tok wax aduna yëpp dama ko violé tek ay doul la waaw sama der lolu gëna a métti fa ah. loolu gën a métti ah kali loolu gën a métti parce que bu dee dafa am cicatrice ah, bu ñu ko fajee une semaine cicatrice ba day dëñ. yéen a gis léeg-léeg sama der à vie la samay doom màgg ëllëg ñu gis ci internet bi Google ak TikTok ak lépp ñu ne sa baay violeur la sama doom mën na xaru loolu. te yow nga dem réy gi ñu foofu toog ñu dugg ci biir ngay def ay coups bas di naan danga may défendre xale bu jigéen bi victime la bu ngi këram toog di dund métit man dunduma métit man xale bu jigéen bu toog wax adduna yëpp dama ko violé fekk ay duul la. di yàq sama der looloo gën a métti fa. Ah. looloo gën a métti. ah Kali. gën a métti parce que bu dee def am cicatrice bu ñu ko fajee une semaine cicatrice ba day dëñ. mais man lu mu yàq sama der à vie la samay doom màgg ëllëg ñu gis ci internet bi Google ak TikTok ak lépp ñu ne sa baay violeur la woon sama doom mën na xaru loolu lu ko gën a métti amul yow nga toog naan xale bi mu ngi dund métti këram ban métti la dund. xale bi daf ñaawteefam tuumaal papa jàmbur tuumaal jëkkëru jàmbur sanctionné woo loolu di sanctionné ay xale bu ñu mattak bu ñu gàjjee yu kenn xamul yéen da ngeen ëpp droit góor ñi ci réew mi réseau siggil jigéen sa gal góor dafa am jigéen bu jaayee reewande góor dóor góor matt góor góor day taxaw ne ko jërëjëf ñaanal ko fatiha amul góor bu koy nangu jamais waaw fa laay yem pour l'instant nag sama Facebook maa ko moom sama TikTok buñ ma doon te vingt ans Donc moi, je vois que le gars, il n'a rien compris. Ndeysaan Mandaba Yakaron, au moins il a compris mais Khalil